Modou di le roi des arènes ñu koy féliciter encore une fois di féliciter waa Parcelles ni gépp Modou Lo ñëw face à euh, Balla mën naa wax euh, kenn xàmmewul état bi mu indil euh, Balla Gaye face à Balla Gaye kenn xamul état bi mu indi mu delluwaat États-Unis liggéey liggéey liggéey trois mois la fa def bu ma juumul daal di indi état bu extraordinaire face à Eumeu Sène ñaari état Modou yi lan nga ci mën a wax. bon ñaari état Modou Lo yi c'est facile à parce que Modou yaa ngi may dégg ci mission bi man la nekk na mbër boo xamante ne man dama respecté ay entraînement mhm. parce que puissance ak rapidité moom lay Modou Lo di liggéey te wax naa la Modou Lo il a une force boo xamante ni yéeme na donc euh, loolu waxoon naa la ko ci émission ba passé mais xam nga préparation yi duñu benn. Modou Lo da dem États-Unis bi pa mu dem euh, Espagne. man si sama xalaat laay wax sama xalaat comme ni ma koy defee damaa jàpp ni Modou Lo euh, dem na ànd ak lu mat su ma juumul ay six mbër. mooy bi muy préparé bi muy préparé Balla. waaye ay six mbër yaakaar naa ne ànd ak ay six mbër. effectivement loolu la woon sax xeet léegi six mbër yooyu mu àndal bu fekkee benn côté bi ñoom ñëpp dañoo war di contact ak euh, Modou Modou boo ko calculer rek calcul bu ndaw laa mel mbër bu nee dina def 100 kilos. Mhm. donc boo jëlee 6 mbër yi day nekk 600 kilos mënoo xëy di recevoir chaque jour 600 kilos sa yaram di résister ak moom yor combat boo xam ni bientôt la donc ñooñu ngay yóbbu noonu bu fekkee da nga jël ñu ku ci nekk dooleem sa yaram maanaam résistance bi ku ci nekk nga am résistance am sa yaram bi dootul capter doole. Hmm. maanaam da ngay day indi benn genre da ngay saturé da waaw mi ngi mel ni nga jël mbuusu ndox takk ko def ko ci frigo chaque minute nga ubbi di xool ndax formé ni dina dem ba fajar du formé moom kese foofu ca États-Unis def trois mois ñibbi si indi doole bu extraordinaire face à ki nga xamante ne mooy ëmmat Sène dama jàpp ni li mu daan def mu koy jik waaw fa la dellu te mbër toujours day bàyyi ci xel bu ñëwee nit ñi ne baaxul mhm. na gën a xool yi nit ñi di wax kon mhm. boo ñëwee bu baaxee ñëpp na baax na waaw waaw mbër bu conscient ci loolu rek après Modou Lo coach su sénégalais yee ko jël mhm. mu ànd ak ñoom ñu ànd ak six wala sept mbër Espagne di ko ne mu ñibbisi face à balle usée mu dellu ci tubaab yi États-Unis trois mois mu defaru donc yéen course sénégalais ngeen bëgg gars yi fay leen xaalis mbëri duñu leen fay xaalis course d'accord loolu loolu li ma ciy tontu day yomb waaw Euh, Didier bu muy bëre bëreeg euh, remarque. waaw combat bu mu desee un mois quinze jour waaw xam nga nee naa la dama am ay partenaires France. waaw dañoo bëggoon moment boobu dañoo kale woon pour Didier ñëw. ma ànd ak moom. waaw il fallait ma dem. mu mi ngi des un mois quinze jours ma ànd ak sama athlète dem ñu war a def foofu un mois. bu ñuy ñibbi si day des quinze jours. waaw mais ma maag Didier boo xoolee vidéo yi di nga ko gis li mu liggéey yëpp. ñooy yeewandoo ñooy cëddandoo. ñooy defandoo yëpp ñooy yéen toute la journée. oui bi ko defee un mois ñu ñibbi bu ñu ñëwee ñaata jours a des 15 jours. waaw des. waaw maag dijee nekk maag dijee nekk nekk ba veille combat bi. waaw xam nga man du ma dem esat waaw mais combat boobu dama jël sama responsabilité dem. parce que bu daan woon. waaw man maay foti bi parce que mbër combat am des un mois 15 jours nga génne ko risque la. Uh-huh. ñu jógee foofu daal di gis Eumeu Sène ñëw face ki nga xamante ne mooy bombardier indi musculation bu extraordinaire ah mu liggéey ci wàllu musculation ba ñëpp félicité ko mais mu ñëw face à mu wàññi poids bi déjà mu wàññi poids bi muscule yi xaw a réer ci yaram bi lu tax coach non xawma xawma xaw ma mais daal euh, li ma ci mën a wax mooy li ma la waxoon rek Eumeu Sène am na niveau musculation bu baax waaw loolu waxoon naa la ko am na niveau musculation bu baax. mais moom fi mu toll ci làmb. ak âge bu mu yor. waaw li war a gën a ëpp ci liggéeyam. waaw mooy athlétisme parce que xam nga Eumeu Sène cawul mooy bare kenn du ko tagg ci xeex. Mhm. naa daanaanu bërikat la. waaw lu mu def te gaawul rek day yàq bëreem. ok parce que am na loo xam ni mënuma cee d'accord ak Eumeu Sène. mi ngi toll ci àdduna fi nga xamante ni tey boo ma gënalee Eumeu Sène fu mu amee vingt cinq ans. ak vingt ans mu nekkoon ci entraînement yi méttee métti. dëgg loolu dëgg. dëgg la mais mënu woon jël yaram. waaw parce que foofu doole bee fa nekk. Uh-huh. mais nee naa la am na âge yoo xam ne boo fa commencé toll yaram bi day ñëw yaram bu buy ñëw nag. yow gaaw ngay liggéey boo yokkee sa gaaw dina la faciliter si bëri parce que Eumeu Sène bërikat la donc man comme que am na niveau musculation bu baax dama ne nay def athlétisme bu bëri parce que gis naa benn entraînement mi ngi takk euh, ci dil takk benn affaire di yéeg. imagine toi. ci suuf si ci suuf si yow Eumeu seen boobu muy yéeg ci kaw di daw. waaw mi ngi mel ni ku ñuy jàpp. waaw maanaam diisaay lay liggéey. waaw doo gaaw liggéeyoo gaaw kuy gaaw koy mooy kuy daw ay vitesse ay 100 mètres ay 200 mètres longue distance yow yaa ngi liggéey gaaw. booy ñaa ñu gis ko bi muy bëreeg Lac de Guiers comme ni ñu koy waxee mbër mu ndaw buy bëreeg ñi nekk ci VIP yi dañuy yokk seen masse musculaire pour mën leen dëkku ñu ñëw gis ni bëri na ba benn moment mu xaw a bàyyi nag. poids bi et tout sonal ko euh, pour yow lan la préparation bi lan la. dama jàpp ni booy Niang. Mhm. dañ ne bokk na ci VIP yi. dëgg loolu wala mu ngi fëgg seen bunt. wala mi ngi fëgg seen bunt ñu war ko ubbil ñaar yooyu moo fi am. mais Boy Niang bu mu fàtte ni xale la. Mhm. mënugul jël xam-xam bi ma doon wax yow sànq laa lay répété ci Boy Niang Boy Niang mënugul jël yenn masse musculaire parce que yaram bi du ko nangu sax doole lay gën a jël ak rapidité kon dafa war a teg ci tempo boobu di ko liggéey ba a yàkkamti pour dem ci VIP yi foog mu nganda su ko defee. waaw bu demee ci ñoom njëriñam du bari. Mhm. waaw mais dafa war a maintenir âge bi mu am liggéey ci gaaw puissance. mooy li ma koy conseil mooy li mu daan def bu mu ko bàyyi. Mhm. booy ñaar da daan indi puissance rapidité. mooy li ma la wax rek. cokkaas la nga ñëw mu jaar la fee dem. Hmm. foofu lay toog ba lu mu am xam nga tey dinaa ñëwaat ci benn bref bu ndaw ci ci Balla exemple rek laa lay jox ci Balla. waaw tey booy Niang li mu bëgg a def nii euh, Sa Thiès li mu bëgg a def nii. Ama Balde li mu bëgg a def nii ñoom ñëpp. waaw dañ fi bëgg a dugg VIP yi jëlee leen. force xam ne loolu lañ bëgg. oui. bu mu ciy toll da ko def. waaw. Balla bu mu ciy toll da ko def. te boo xoolee Balla bu mu tollee du ko def bu mu ñëwee ci Yékini ak Bomba. ak euh, Tyson Yékini ak Tyson si ngay gis Balla jël benn yaram boo xam ni jaaduwul. waaw boo xoolee après yaramam boobu ci la commencé am ay problème waaw du dëgg. mais bu muy yor Balla <laughs> dooley Balla bi kenn du taxaw. déedéet doo taxaw. parce que mën na xale na ñime na. mais coach mais coach bu boobaa les lourds là VIP yi lourds yi. mais bu leen bëggee daan boo yokkul sa poids nan nga leen di daanee. coach ak poids di yokk ah, tey làmb ji. luur. Mhm. luur yi ngay wax seen bëree day xaw a yàgg léegi. waaw parce que foog ñu taxaw di calculer wala ñuy buuxante. waaw dëgg la wala dëgg. waaw donc ku ci nekk nag da am niveau booy bëree. boo xoolee Eumeu seen lu mu indil bombardier taxaw fixé ko. waaw may ko benn arrière xam ni bombarde bu dóoree day ñëw. waaw day am dara. donc ci nan nga war a bëreek ak ñoom. nan nga war a bëreeg forcément nga jël pois combat wu Boy Niang hmm, la Lac de Guiers man la de Guiers je me suis ni mbër bi nga xamante ni yaa ngi jël avance am koo gis àdduna dafa am mëninam. waaw Lac de Guiers taxaw la mën défendre daan la. waaw je pense que boo ko mënul daan. waaw non bu jël avance am parce que nit ñi foog ñu nangul nit lu ko yàlla may mais la de Guiers li mu mën. bu ko bàyyee bu mu ko bàyyee la daanu. waaw ci ëmb waaw mais dootu ko defaat ku jël avance na ko daan ci ni muy bëree soo ko mënul daan bul ne day niile ko du bëree loolu wax ju yàqu la. pendant des années Lac de moom même pois bi lay maintenir gis naa ko ci Yékini mu xaw a yokk tuuti volume et tout musculation bi mu yéegal tuuti niveau bi mais ba tey la de ci niveau bi lay yem lu tax. waaw Lac de Guiers li ma la waxoon rek mais nag dama yaakaar ni combat bi est-ce la Lac de yokkaatul doole. oui doole mën na am mais. yokkaat doole yokkul yokkaat doole xam nga mooy laa la rek. parce tamit coin bi la de Guiers bokk na ci mbër yu gën a stable yaram. entraînement am. dafa stable quoi jërul ngande yenn ngande yi mais entraînement entraînement boo xam ne dafa juste nga xool la de Guiers nga ni indi na doole xam nga loolu ëppul. oui mais mën nga xool nit rek ni caa mii kii indi na maas. Hmm. man dama ragal maas. ah yow maas nga ragal. dama ragal maas gis nga li tax ma ragal maas njëriñ doo ko Didier defe naa combat bi muy daanu mi ngi def cent que ay cent. kaso na Didier non. <laughs> du ko may dara presque mi ngi def ay ay ay cent quarante kilos yu teg ah. oui Didier mi mais. mais bo xool naa Didier mi ngi masse bu jéggi dayoo. mais xam naa ni du bëre. du bëre loolu àndul ak bëre. ma Gris 2 gis nañu entraînement yi may faral di gis géej laay taseeg moom euh, fi nga xamante ne moom mooy géeju parcelle bi. Hmm, muy daw lu bëri ci suuf si et tout mais athlète bi dafay mel ni dañuy bëgg je sais wàññi ko ci ay polo ak yooyu xam nga physique googu noonu sentiruma ko trop ci musculation dafa war def musculation wala système boobu la war a def ba jeex wala est-ce que war na jeex. bon xam nga Gris bokk na ci mbër yi nga xamante ni dañ na xale la. waaw dëgg loolu dëgg. xale la boo xoolee magam sant bi mu amoon giri amu ko Gris de amu ko. Gris bu muy dugg ci làmb di ñëw Gris dafa indi yaram bu sec yaram mu athlète bu baax am xeex bu rangé wu. Gris 1 waaw mais Maodo macha allah dafa indi poids. ci làmb kon moo Gris bokkuñu. Hmm. mais tey ku mel ni Gris ah du ma d'accord mukk muy charge ci suuf. Gris 2 du ma ko d'accord te Gris yaram bi mun naa wàññeeku. ah bon mun naa wàññeeku de. yaram bi mun naa wàññeeku. te mën na danse mën na dëgër. nan changé xeet yi muy entraîné rek. Ah. mbër moo xamante ni bu arbitre soufflé fu nit fekk fu foo fekk sa adversaire waaxu ci kawam. waaw non kooku dafa war a gaaw. mais Gris 2 ak poids bi mu yor nga ne mën na gaaw yaram bi mën na dëgër. na wàññeeku. te mën na dëgër. xay Gris dëgër na. non maanaam densité musculaire. waaw mais Gris am na doole dëgër na mais dama ne gaaw poids bi wàññeeku mun naa ne. mën na ne waaw. xam nga àdduna dafa doy dinaa la jox benn exemple bu ndaw da ngay gis benn mbër boo xam ne day nekk ci salle di démerde di démerde ba commencé am ay million waaw da ngay gis benn sénégalais day jóge fële fayal ko États-Unis walla France alal bu bari pour mu dem entraînement te du mës a gis fi waa ji doon entraîné complexe la mu doo mus a gis loolu boo laalee coach yi 90 pour ñëpp gis nañ li may wax effectivement kon nañ valoriser seen coach si jëndal oto bu rafet def ko bu amee teree tabaxal ko bu amul teree nga jëndal ko terrain million yi jaka partage bi foofu lay njëkkee parce que xam nga diggante élève ak coacham bu ma la ko nëbbul rek day mel ni doom ak papa mm-hmm. soo xoolee xaw ma am nga vidéo yi xaw ma am nga ko man samay athlète samay doom dan daan nekk plein compétition ñi ngi jàngee ci école yi foofu amul tardé jàng force bu jàngul sax ñu woo la dëgg loolu dëgg ku nag gis na ni muy doxee sama doom yi damay def sacrifice bu sama mbër yi waree def réglage tax xam naa ne bu ñu deful réglage lu ma liggéey du baax damay jël paasu taxi dugal sama doom yi taxi ñu dem jàngi ma jël samay mbër dugal sama oto yóbbu leen entraînement pour ñu mën a am résultat kon boo fonkul ki ngay entraîné mhm. du mun a am résultat boo ko yéenewul li nga yéene sa doom résultat bi xam nga xaaj day jeex. Mhm. tey boo ñëwee ci man pour ma entraîner la nga ne fay nga ma rek mais man damay limité sama bopp. mais bu ma xamee ne kii dafa may yaakaar non war naa def de plus lu nga xamante ni que tey jël sama mooy def ci. alors coach mhm. euh, émission bi mu ngi waaj a jeex. Mhm. alors euh, lan mooy lan mooy mëbët yi fu mu toll nii euh, fan la coach Max tollu par rapport ak ay projet am déjà voyager ak yi ngay def. Euh, yaak waa bitim réew foo leen ci toll. boo ñu ngi ci projet bi ñu ngi liggéey mais yàlla def na benn affaire boo xam ni xam nga man dama bëgg Sénégal. Mhm. dama bëgg Sénégal dama gëm Sénégal dama bëgg dama bëgg kuy dem daal. Mhm. soo gisee tey maa ngi sol. <laughs> mooy Sénégal mooy Sadio Mané. oui ma sol ko. def fi nekk di xëccoog Messi ak Ronaldo. ku ne xam na ni. waaw Messi moo fi mën. ku ne xam ne ni Ronaldo moo fi mën mais actuellement. Sadio day xëccoog ñoom. waaw même buñ ko xeexee ballon bi ku na xam na ni xale bee ko moom. waaw yi kii ngeen war a jàppale. football Afrique bi moo ko yor. Mhm. adduna bi moom lañ gën a respecté ci joueur africain. ko mhm. ci leen niveau bi. kay waaw niveau bi. waaw mi ngi fi. waaw kay. yéegal leen niveau bi niveau bi mi ngi fi xam-xam mi ngi fi man nag. nu ma koy faral di waxee rek xam nga lii duma ci fo tey su ma doon su ma doon joxoñ mbër ne ko lii tegaw ko ci yoon. dama koy wax ak plaisir. parce que ñoom lañ fi am athlètes lañ fi am yeneen xale ngi ñëw. ñoom Balla fi ñu toll nii dañuy dem ñeneen ñëw. force ñoom Modou Lo fi ñu toll ñi ñoom ñoom ñoom Bombardier ak ñooñu dañuy dem. am na benn xale boo xamante ni ma koy ñu tuddi mbër bu mel ni Sa Thiès. am nga. Sa du ma ne duy voyager mais pratiquement dafa mel ni combat am yëpp fii la koy préparé. waaw boo xoolee Sa Thiès mi ngi yor yaram bu stable. waaw gisaguma ko mu yor yaram bu ëpp. waaw gaaw yu Sa Thiès ñëpp xam nañ dafa gaaw dëgg la wala dëgg. dëgg la mais Sa Sa dafa war a xam mbër day màgg sport day am sport de haut niveau. day màgg ci fan ci bopp. waaw. ci mental ci mental. Sa Thiès dafa tollootul ci àdduna bi fii wala Sénégal fii di wan kenn damaa mën a bëre wala damaa kaaw ñëpp nangul nañ ko ko ñëpp jox nañ ko cër boobu waaye nag booy bëree. waaw bu gars yi xam nag li nga indi. ah parce que moom ci signature contrat la lay wax. li ma bëgg a def waaw parce que damay gis boo gisee mu dugg ci côté boobu conseil bi ma ko jox la chaque fois day insister li ma daan def lay def. waaw am nga ci droit mais jàppal ni da ngay màgg. athlétisme bi. bon athlétisme bi mooy waxoon naa ko ci ama ama nay def athlétisme bu bari parce que saal am na yenn yaram yooyu xamante ni saal bu bari bi du la arrangé xam nga am na ñoo xamante ni mooy li ma lay wax après xëy na di nga ci bàyyi xel génneel mbër yi am vingt ans ak 25 ans moment bi ñuy entraîné dëgg dëgg dëgg nu ñoo jël masse âge bi du leen ko permettre. puissance la ñuy am. puissance ngay am rek bu yenn yaram yi boo commencé am rek parce que yaa ngi jël âge mooy tafatin. tafatin waaw. Tapha Tine nga yaakaar naa émission bi ma la doon wax. seetaan naa ko. oui mais Tapha gis nga taay bi mu yor nii. waaw. Euh, nu muy bëree nii toog ci tànkam dox jëm sa kaw. waaw mooy Tapha Tine. Ah. fu mu xaaree mbër rek day juur. kon warul xaar mbër. du kuy xaar bu xaaree day juum mais xam nga ponkol yu am doole ëmb la di dox sa kaw nànk di ñëw. waaw soit nga génn yi wala nga ñëw mu jàpp la. mais taxaw. waaw ñu lay calculer. waaw non bu lay bett da lay bett. da bett donc loolu na ko moytu. tey sama coach. <laughs> Ah <laughs> non li ci garaaw mooy coach dafa mën bëree mais coach li ngay wax noonu ci Tapha Tine effectivement dëgg la defetam yi sax boo xoolee ñi ko fay fekk di ko remplacer wala di ko taf dafay taxaw di fa calculer gars yi fekk ko fa remplacer waaye ku mu dox sa kaw en général euh, moom mooy am ndam coach da nga jàng bëree day yow. waaw ya waxoon naa la ko ci émission bi boo xoolee euh, maa koy nuyu à passage à Père bi yor Modou Lo waaw. gis nga moment bu muy nekk jeune di bëre Colobane. waaw di toj. boobu maa ngi Colobane nekk xale bu ndaw di bëri xalo génération boobu. Mhm. père Ndiouga seen génération yëpp maa ngi ko doon seetaan. nga xam ne ko mbëri bu ñu amul combat dëgg dëgg dëgg. waaw lu war ci entraînement ko def. duñ yaram yi ci lay yàqu. Mhm. donc ku ci moytu loolu rek. sport de haut comme ni ma la koy waxee rek dafa metti dafa metti da ngay xëy dem entraînement maintien xool li ngay lekk ak li nga dul Mhm. détails yu bari yoo nga xamante ni yu neex neex yu bari doo ko jël yooyu day joué quoi day joué. d'accord waaw day joué quoi. d'accord alors coach lan ngay tàggatoo sa émission jeex na. waa ni may tàggatoo rek maa ngi nuyu mbokku Sénégal bi yëpp donc comme ni ma ko defoon émission ba passé maa ngi nuyu coach yi fi nekk yëpp. ñi ma fi tudd seen tur damay wax juste sama xalaat nekkul dama ne li may wax moo mooy xam-xam loolu noonu non lu woon de ça donc di nuyu ñëpp di jégalu ñëpp di baal ñëpp di nuyu waa Colobane. di nuyu comme eh bébé Mohamed sama doom tey la anniversaire am. happy birthday waaw ma koy ñaanal yàlla gudd fan ak donc ak sama xarit bi nga xamante ni dafa takk jabar nag Cheikh Oumar <laughs> donc maa koy ñaanal. moo jabaram yàlla bàyyi leen fi. dafa leen xéwal bu bëree bari bari amiin nuyu waa Colobane bi yëpp yëpp yëpp yëpp. noonu la euh, coach Max tàggatoowee ñu leen di wax ni mbokk yi am nañu mbekke bu baax a baax. jàkkaarloog moom parce que saa yu ñu bëggee euh, tourné ak moom macha allah mu nangul ñu ko li tax ñu bëggoon a xaar ba saison bi euh, tëj pour ñu wax ci mooy mu am euh, un peu par réaction yi li nga xamante ne ñoom ñooy mbër yi bëree xool seen état physique li nga xamante ne jaaxal nañu aussi ñu ñëw waxtaanee kook moom moom ci moom la ñuy rootee ci wàllu musculation. ci moom la ñuy rootee ci yaatoo yaatu ndax saa yu ma gisee mbër yenn état yi surtout VIP yi damay daw si ñëw mu ne ma lii de bu ko waa ji continuer du ci am résultat te ma koy gis aussi donc waxu daawa mbokk yi bi ma nekkee DTV waxoon naa leen ko ak waxu renam ñoom ñoo yem donc mbër yi ñoom ñoo war a jàngat xoolaat seen bopp daal di jàngat daal di xool ci coach yi li leen di wax coach ci Sénégal yi aussi nañu xoolaat seen bopp parce que man mënumaa comprendre nga entraîner mbër trois ans mu ñëw comprendre ñu état bi mu indi mu dem Europe trois mois mu indi forme bu extraordinaire gis nañ ko ci Balla Gaye gis nañ ko ci Modou donc coach yi aussi nañu xoolaat seen niveau yi bu ñu bëggee comme ni coach yi di wax xaalis bi mbër yi di leen ko jox également di remercier euh, téléspectateurs yi Equivox yi ñu ngi waajal lu yaatoo yaatu bu soobee yàlla danañ leen koy indi juste souhaiter un happy birthday à à Ladji ah Ladji happy birthday je te souhaite le meilleur ah continue de prendre soin de ta maman de ta mère et voilà donc ma leen di remercier di remercier Aladji Elage le maire donc moom la ñu àndal tey ci émission bi di remercier DJ di remercier euh, Mohamed di remercier euh, fi nga xamante ne moom mooy euh, fii ci monument bi nga xamante ne fi la ñu tourné suñu grand bi aussi Thian ñu koy remercier di remercier ñëpp di leen jox di jaje très bientôt ci beneen numéro Vox Arena peace